asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yow sama doom sama doom ji nga xam ne maa la jur ak jiñ ma jural ak doom ji ma doomoo ci sama coobare muy sama doomi ruux ak sama doomi xol ak ñi coobarewu ngir def may seen baay baayub xol ak baayub roox ñoo ñëpp laay boole ndigal lii doonte sama doom yi bopp la ndigal li jaar ci moom ma doon ko laa biire waaye ku ci bëgg a jariñu mën na cee jariñu ba romb leen nag ba dem ci bépp jullit bu ko bëgg a jariñu auzu billahi min alcheytaan arrajim ya bunay salaah waamur bil maaruf wanha anil munkar wasbir ala ma asaabak inna dalika min asbi lumuur maa ngi lay dénk ci si àddina kay xool ki nga tane te bañ a xool ki la tane waxtu wooy xool ki nga tane da ngay gën a sant yàlla waaye booy xool ki la koy añaane da nga koy mere te defu la dara te doo mën a sant yàlla cant ga war sa digg sa borom. maa ngi day dénk képp ku la mag donte bokku leen dara na ko jàpp ne sa mag ji nga bokk ndey ak bàyyi ci worma ak fonkeel ak wegeel ki nga mag na ko jàpp ne sa rakk ji nga bokk ndey ak bàyyi ci yërmande ak ñeewant. ci dimbale ko ak jàppale ko ki nga tollool it nga xool ko sa jëmmi bopp loo yëllalut ci sa jëmmi bopp ji bu ko yàlloo def ko ko wala nga wax ko ko wala nga yéene ko ko wala nga xoole ko ko ñi nga àndalit ñett rek lay doon mooy kii la yilif di sa waajur wala sab sëriñ déglu ay ndigalam te bu jël leen kaar dara mooy li sëñ bi naan watarkul i'tiraadi mu digal la ba nga naan lu tax mu digal ma ko mën naa defee nii mënoon naa defee naa kilifa gu mat kilifa jëfe rek moo ca war topp te doo ci xalaat dara doo ci wet dara doo ci seet dara ñi nga xam say bokk lañ it loo mën ci fonk leen ak teral leen ak jokk bokk nga di ko def ñi nga bokkulul dara it nga xam ne bokk ngeen lu doole lépp muy njullit gi innamal mu'minuuna ixwa nga jàpp ne day bokk bokk ñoom la nga am bokk ñoom pas-pas bokk ñoom yéene fonk leen weg leen ki nga bokkul diine te muy mbokkum doomu aadama séddal yàlla mi ko bind ak yàlla ci moom di ko ca xool li sëñ bi naan waraay fii kulli xalqin xaq man xalaqa bu dee yéefar sax jëmmi bind bind bi na ko war maal ngir bind gi ko yàlla bind kon jikko ji ak melowa dangay xool rek yow weddi gi mu weddi yonent ak bañ gi mu bañ yonent bi nga bañ ko ngir loolu waaye jëmm ji mu bu ci ne na maal comme ni nga yoon maale sax ñi ay nit muy ndeg ment yeeg ngenaaw yeeg yëpp ndax yàlla mi leen bind waraay fii kulli xalqin xaq man xalaqan